مجين بجو نذوب لين دم غاربا جوغ لين تاخو جوغ لين سانتو سايخي فاليلو جوغ لين تاخو سايخي فاليلو غدي بچنگ جوبلو سايخي فاليلو يا رو چ مولم لولو ياو يا مصطفى يا منتقل يا وليو بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي نيغا خامني yéen ngi topp seen télévision bii di Mbour TV ñu fas yéene ànd ak yéen dégtal leen li nga xam ne moo xew fii ci màggalu Kazu Rajab ma ànd sama caméraman Serigne Jibi Saalix nekk fii ci barabu Cheikh Mahamadul Fadal bi fas yéene leen a jëlal ziar yi naka noonu itam dinañ leen wan lépp loo xam ne xew na fii su ngeen ñu toppee incha allah dinañ leen ci wan lu jéggi dayo ci noonu itam lañ fas yéene ànd ak yéen leeral leen li xam ne moo xew fi yëpp ci biir Touba ziari kër njabootu Cheikh Mahamadul Fadal gi yëpp rek incha allah taala asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Fallou gi lépp luñ fi ñaan yàlla ko suñ borom nangu Yalla yalla nangu ñaani yalla yagal ñu labal kanam ñun ñepp yalla labal suñu xol yi yalla atta ñu si yërmandeem sëñ ñu yalla defal jamm ak salam fekk ak tal mucc ak mucc ak wër la bak señ Touba xay ma ngi tuddu dadel Wañ ñaarem bark señ Touba. fi del si ay deweneti deweneti tay jek ci ba darajaay señ fallu lepp lu ci ñaan yalla nako ko bi nungu waaw fa kal man ndal di ñaan yalla barké seenu liggéey té seen radio bi sama borom yëkëti ko ci kaw ci barké Sëñ fallu mbaké képp ku fi ñëw ba ñaan ci Sëñ fallu mbaké lo fi ñaan yalla na yalla dañ nako sama borom nangu ci nak Sëñ fallu mbaké man nak du mëna a sëñ fay sëñ fallu ndax li mënon ñaan am naa ko bu yag ndax turandoowu sëñ fallu la bëggoon mu nekk ci jàng alcorane te am ko ba fii nekk ma yor ni na ñaari at waaye at mu jot dagal naa ko kayit ba kayit yaa ngi nii bëgg naa weer wu dee at mu jotati aw kayit naa bu at mu njëkk mi yaa ngi dagg juróom juróom carte membre bi 1000 francs beneen carte bi reçu bi mooy 3000 at mu jot na nga daggaat 3000 ba ci carte nag sëñ Fallou bare sas nañ ci barab itam turandoo sëñ Fallou yëpp kenn ku nekk amum góor fukki junni lañ na sas ko am jigéen nga fa joxe juróomi junni lépp na ñaan ñaan ci carte sëñ Fallou lépp lu ci waay man na ko ci def te lu ci waay sëñ sëm ñaan sëñ Fallou da nga ko am ndax sëñ Fallou jaaxee naa te képp ku fi ñëw loo loo fi dagaan suñu borom la ko may ci nam kon nañ sant nañ bu baax di len gërëm tay lepp lo xam ne am am am nañ ko am nañ ko daw ren am nañ lako ko ci kon nak sant nañ bu baax di gërëm yalla na sa borom yok yok ay leram ta taw ni ci barkem ci kàttanu Serigne Fallou Mbacké géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbacké Cheikh Fallou fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbacké sengul dagul dugal serigne khulay Alaaji Fallou ah sant yàlla bu baax rek di ñaan ñu fekk ko ay déwén déwén ci barke maam Serap Fall gën cee góorgóorlu baax rek ca xam ne mbirum sëñ Touba moom amu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf ñu rafetlu liggéey bu baax dëgg yàlla. Soxna Fatou Gueye dëkk Daaru Ndiaye si. Ah, naka gi. moom neex rek ak xéewal suñu faal moom suñu faalum ñëpp àdduna si a ko bokk bisam bii war naa kenn ku ne bàyyi sa yitte def ci loo am ak loo man ndax suñu faal moom gudi la rek ko ko lebal ker rek mu fay la gudi fu ko waa ñaan rek mu walu la amul murit bi amul qadir bi amul tijaan bi sëñ Faalu sëñ Faalum ñëpp bisam bi moom na ci ñepp taxaw rek te diko yag yàgg siyaara Mbàkke Balla yaa di ma ma maam sa bali jël na ndam la bambaani fallu laayi fallum yàlla ala ci yom bu sey ni jaayam bamba di baayam falli di yaaram ya jara way yaa jara jo khidaya Ya jara jam, ya, ya, ya. ya borom la kon bismillah tee maa way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara maa ngi bàyyi Dakar la bayiko naka nga yegi bis bi bis bi ak sant rek waw ak cant rek ak cant rek ndax sëñ fallu mom manam ñepp ñoko wara jukkal kep ko xamanteni doom adama nga rek ku yalla bind rek nga bok ci xéetu seyna mamer war nga sant sëñ Fallu ndax kenn ku ne am nga bis bo xamne ne nga wo sëñ Fallu mu wisi la muy julit beeg ku du julit ñoo ci yam mourid beeg tidiane beeg khadir bi ñepp ñoo ci yam kon bis bi ah ñepp war nañu ñew pour ko di ñaan yalla kep ko xamne ñoo nga fi yalla na sa borom barkel lepp lo fi ñaan ku fi ñew it yalla nga fi dellusiwaat diwén aaju bi fi way indi yalla ko suñu borom faj. ci barki yonent bi baaxub sëriñ Fallu sëriñ Fallu nag ñaanam gi moom saawaan na baawaan bés bu yàlla sàkk ñu gis ko teg suñu ñoo ñaan suñu borom yàlla yokk ay leeram ak képp koo xam ne fekk nga ko akum fa fekk bi jaay Seydina Mohamed soxna jaara soxna jaara moo di day ba muy desi di feeñaat teeram wade foo ndaw soxna jaara bu géeyeen kon mi neefi tey duñu beew waaye nga te waaye nga teefaloon nga teefoo nga jëlu ma bi des yàllal yow yàlla jox barke soxna jaara bu defan sukk cuune du ñu wan ki ñuulu dolli dal ko ñu cim nen soxna jaara la ñuulu masula julli te jàppul masula julli te wildul doole kay sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxna te njaayi mbokkam saalam sa maaram la laalal sëñ gaawaan sëñ gaawaan rekki ban may jaamam jaam say la jaam baatil bambal kami kaadam cog ndéego la jébbal kaalan sa dem rootil donga yi xayu toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daa rootal général ba moo niital. noonu ñu ko amale won ci ziar yi nga xamni ñu fi ci barab bi doon leen ko fi topal nit ñi fasiyene taxaw feñal seen ciofel ci Cheikh Mouhamadul Fadal xëy na barab bi lim nek santé motax agun ci bir won leen li xew wa inshallah taala taala ñu top ci programme yi am ci bir dëkk bi lépp inshallah ci njabot gi ak fépp fo xamni dañ ko fay magal inshallah dañ leen ko andil wa indil alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh